jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di euh, nuyu bu baax a baax di leen di jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck ñuy nuyu suñu mbokk auditeurs yeeg suñu mbokk auditrices yi tey nag. ñu daal di euh, dalal El Hadji Momar euh, Samb moom nag euh, yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté mu nekk secrétaire général bu RTS nekk membre ci benn Bokk Yaakaar bokk tamit ci CEP e secrétariat exécutif permanent bu Benno Bokk Yaakaar moom la ñu invité tey Adama Diallo moo nekk ci wàllu technique bi El Hadji Momar Samb Rewmi mi a ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdou Khadre Seck di la nuyu yow sa bopp di la gërëm ci invitation bi. di nuyu tamit euh, mbokki auditeurs yi xam ne ñooy déglu Rewmi FM ci sa émission bi di nuyu tamit kilifa kër gi ndax euh, yàlla def na yàgg nañu euh, xame yàgg nañu gisee may teew ci la muy organiser daanaka at mu jot jagleel ko liggéey walla xëy mu jëm ci ndaw yi te ñu bokk tamit seex euh, bokk fa ñu nekk ci conseil économique sociale social e mu fay euh, diriger benn commission man tamit ma fay diriger benn commission jeunesse éducation formation loolu bëggoon naa ko wax ndax li euh, ñu seex ak jàmm ak salaam ak tamit kóolute ak respect waaw wax dëgg yàlla ku am yëg la ci nit rafet na xool ak jikko jërëjëf président Mbagnick Diop euh, ñun tim ñu koy nuyu bu baax a baax euh, di ko ziar di ko jaajëfal léegi yi moo war sàmb sànq ci présentation bi wax naa yow yaay secretaire général bu euh, RTA bu RTAS ndax mën ngaa dikk ci li nga xamante ni mooy boobulee kuréel kañ la taxaw ak lan moo nekk seen jubluwaay. RTS nag moom buñ koy tudd euh, mu ngi juddu ci atu 1996 jàpp 97 ndax dañu juddu war a am kayit te ñu toog at di ko xeex ngir am kayit euh, buy wane ne nangul nañu suñu judd waaye dafa am fu mu soxee ko ci langue goo xamee ne moom la ñuy wax euh, Euh, ferñeent yu euh, xam ne dañu bokkoon na di génn benn euh, journal bu ñuy wax ferñeent di ci wax nekkinu askan wi di ci xeex ngir askan wi gën a xam boppam rawatina fi ñu féete ci peggu askan wi muy liggéeykatu réew mi ak bu àdduna bi bu Afrique bëggoon loo xam ne mën na leen euh, sol ci xam-xam ak xel ba ñu mën a moom seen bopp mën a sigil seen bopp sigil réew mu ñu nekk sigil askan wi ñu bokk ak sigil askanu Afrique loolu ñu daw ba ci at mi ma lay wax ni ci la ñu taxawal kër gi xeex boobu nag dafa nekkoon xeexu xeexu suuf lu ñuy wax euh, clandestinité boo xam ne lu nekk dal nañu ci am na kuñ ci ñàkk ku ñuy wax Birane Gueye en 1986 man sama bopp tëjoon nañ ma ci kaso euh, juróom-benn weer ci 1984 loolu yëpp di ay jaar jaar yoo xam ne am na tamit lu ko jiitu sama jaar jaaru bopp waaye bu ñuy wax ci RTS noonu la ñuy wax deux 2011 nag la ñuy def suñu congrès parce que kuréel la boo xam ne danoon doon coordonné rek euh, ma jiite ko waaye 2011 la ñuy def suñu congrès euh, ci lañ ma def secretaire général. donc kuréel la goo xam ne du man maa ko sos dañ ko sosandoo ak samay ñooñ ak samay nawle ndax bokk xalaat bokk yéene bokk jëmu euh, ak gis-gis ci àdduna bi ci réew mi euh, ci askanu Sénégal loolu daal euh, ci gàttal mën naa ko ci wax waaw euh, El Hadj Momar Samb taxawaay boobu nga xamante ni tey euh, moom moo tax a jóg euh, kuréel gi ak seen xalaat boobu ak ni nga ko waxee ak coono yi nga xamante ni dañ ngeen ko si entre entre guillemets ndax taxawaay boobu ba léegi nii moom ngeen amee ci réew mi ndax li ngeen doon ñaawlu li ngeen doon dénoncé li ngeen doon naqarlu. <laughs> waaw laaj boobu toujours ñu laaj ma ko ndax dañu naa waaw El Hadj Momar Samb ñu daan dégg mu bokkoon opposition. léegi mu ngi ci waaw daan wax réew dañ koy pencoo kenn du ko pàccoo léegi mu ci nguur gi te ñu gis ci ay mbir yoo xam ne xëy na rafetul wala doy na waar wala ñi ñaa ngi koy lam-lamee ma ne loolu yëpp du tere ñu xam fi ñu jógee ah fi ñu yegg si tey ndax lii euh, Benno Bokk Yaakaar tey jot ci réew mi ñun ñoo ko liggéey ñu bari dañu foog ne dañu nekkoon ci opposition bi ensuite nguur dikk ñu dugg ci nguur gi opposition moo doon xeex jële fi li fi ne woon falu loolu dafa war a leer ci bopp ñu ñi ñi ñuy déglu tamit ñun ñoo doon xeex démb lii xam ne moo doon nguuru Abdoulaye Wade ndax lañ fa gisoon jëmul woon ci liy baaxal askan wi di nitel askan wi di yemmale askan wi ci li koy niteel jëlu ko fi jël nguur gi bu ñu seet nag ndax man maa ngi ci poste bi wala poste bële loolu amul solo li am solo sunu xeex mooy lañu ñu bëggoon na bëggaloon réew mi bëggal ko askan wi ndax ñu ngi ci ba léegi la taxoon ñu ñuy xeex ca loolu ndax ñu ngi ca ba léegi. loolu li ma la ci bëgg a indi rek mooy li ñu daan wax réew dañ koy pencoo kenn du ko pencoo ren la gën a fës fees sunu xol ak sunu xel waaw ba jàpp suñu cër yëpp moo di lu ñuy seetlu. ci politique politique mooy lépp lu ñuy tëral ngir luy jëmal réew mi kanam luy baaxal askan wi lu koy dolli lu koy yokk ci anam bu mu mënti doon loolu mooy politique publique dañu gisoon ci jamono ab Abdoulaye Wade jamono sax Abdou Diouf jamono sax Senghor parce que man depuis jamono Senghor maa ngi ci xeex bi réew mi ñaari réew la woon ñaari Sénégal Sénégalu réewu taax ak Sénégalu àll bi lu ñuy wax àll bi fii moo am ndox fii moo am courant fii moo am ci réewu taax moo am lépp loo xam ne mooy dolli nit mooy yokk nit mooy baaxal nit mooy niteel nit ba ci jànguwaay yi ba ci këru euh, faj faj faj wér-gi-yaram yi ak yeneen ak yeneen loolu moo mas a neex nekk suñu xeex mooy équité sociale équité territoriale justice sociale waaye bu ñu xoolee réew mi fañ ko jëlee 2011 2012 ba léegi am na fi jéego yoo xam ne am fi yokk yoo xam ne ay jubbanti ay joyanti yoo xam ne ñun loolu lañu ñu namoon ci réew mi donte sunu gis-gis ñun RTS ak gis-gisu APR wala beneen parti xëy ne mën na bañ a méngoo ndax fa ñuy fa ñuy gisee jéggi na jamono yi jéggi na rekk joyante jéggi na rekk baaxal waaye dem ba ci jàllar bi loo xamee ne ñii xam ne ñoo war a ñor nguur gi mooy ñii xam ne ñooy liggéeykat yi loolu yëg seeguñu sax waaye du tere fi ñu toll ak fa ñu jóge ñu xam ne lan mooy baax yan jéego moo mën a baaxal moo mën a joyanti lii mooy li tax ñu teg lii mooy Benno Bokk Yaakaar uh-huh. sanc ko te bañ koy sanc maa ngi fàttaliku toujours euh, guddi bañ koy sos ba ñuy génn turba ñi ko seexoon muy mën représenté Benno Siggil Sénégal bu Ñas waa Benno ak Tanor mel ni sëñ Mbaye Thiam euh, ñu mel ni Seydou hmm, bokk ci APR euh, Macky 2012 ñu mel ni Mahmoud Saleh ak suñu jigéen euh, euh, euh, Kati Cissé woon Momar Samb ñun ñoo toogoon waxtaani lan mooy sunu programme. d'accord mais mais El Hadj Momar Samb. <laughs> bala ñuy ñëw ci li nga xamante ni tey. Hmm. ndax yow seen parte bi dafa mën nañoo doy wala seen kuréel gi dafa nekkoon ci ci gauche bi. Hmm. mais li ma bëgg a wax mooy yéen li ngeen doon naqarlu. Hmm. ba te ji dem kaso. Euh, jàpp ne dañuy saax-saaxee alalu réew mi mhm. jàpp ne tolloo amul ci wàllum faju mhm. amul ci wàllum justice mhm. amul ci wàllum éducation mais ba léegi nii am na ñoo xamante ni dañoo nemmeeku ne euh, am na ci nguuru Macky Sall ñàkkul dama wax ne ah, bunt yu ñu ubbi ngir baaxal jéego yu ñu def képp kuy waxal yàlla te am lu ñuy wax rek honnêteté intellectuelle probité dinga mën a nangu ne fa ñu jëlee réew mi ak fi ñu ko indi wax dëgg yàlla ci luy yemale luy niteel luy baaxal lu wér la. côté. boo mën a jël rek boo jëlee éducation jéego yi macha allah dama lay fàttali rek nga ñun dañu bokkoon ci ñu doon def état généro sud bu njëkk ba. 1981 maa ngi fàttaliku toujours lañ daan wax ne njàng mi dañ ko war a ah bi. yar xale yi tàggat leen dañ ko war a méngale ah réew ni muy doxe li ñu jag looloon luy formation professionnelle technique ñu suufeel ko li ñu yëkki woon mooy njàng presque académique loolu joyanti nañ ko ba tey boo seetloo investissement yi ñu def ci wàllu woowu ah li ñuy doxale ci wàllu woowu changement sax gisin. mais ñu bari ne dana soppeeku si boo dee xool. xam nga buñ ne bu ñuy waxtaanee noonu duñu duñ fi jóge bu ñu ne ñu. <laughs> boo ma ah, waaw mais dañoo xam nga dañoo gis ne tey grève bu dee grève yi ma ngi am. tey par exemple tey su dee tey ay euh, leneen lu baree bari lu sooxee ci mbiru éducation tey ci mbiru université doy euh, ci mbiru école yu doy ci mbiru formation boo xamante ni bu dëgër la loolu lépp ba léegi ni tey gis nañu ñu bari ñoo ngi koy jàmbat ci mbiru éducation. xam nga bu fekkee dañuy waxtaan rek te di déglunte di sàkku rek xeltu ngir am lu leer ci teg lu ñu teg baaraam lu ne. day foog ñu déglante dama mën naa la wax pour loolu sax ñu ñu yemale foofu waxtaan wi ci wàlloo moo di ne dara matewul ok àdduna moo soo gisuloo benn réew bu mu mën di doon dëkk mhm. bu lépp mate fen dëkk ñi ñu ëpp doole ak ñi ñu gën a néew doole lu muy tekki loolu mooy doon natt jéego am réew ah baaxam réew ah yokkuteem réew doo ko ndatt ci ne am na lu matadi ma jox la beneen xoolal courant bi ni mu meloon ci dangu Abdoulaye Wade nga waatal sa bopp ne bu dee dëgg rek moo tax nga jóg ah wali am mooy fi ñu toll ngëneel li ëpp na sax yaakaar bi ñu amoon te bokkoon na ci li taxoon ñu gën a xeex ndax la mu andi woon ci fitna mare day taal waaye matewul mhm. yow bu dee am nga am nga ay mbokk yu ne ci àll bi réew kaw dañ la biral ne courant ba fa mu yëg si yëg si fa woon démb dañ la biral ne ndox mi fa mu yëg si ndox mu sell yëg si fa woon démb dama doon waxtaan sama benn mbokk la nga wax gauche mu wax ma Momar ñu dem ci élection mu ne ñi bëgg ma bañ a jàppale wala ñu bañ a jàppale Macky sàll xaw ma fu ñu koy teg parce que man fa ma dëkk ci saalum île de Saloum amuñu woon ndax ay siècle la ngi nii c'est-à-dire mësuñu xam ndox mu sel ñu dem ba yooyu agsi fa ñoo xam ne dañ leen bedd woon ci réew mi ay politique piment PUDC ñu boole leen ci réew mi ci ay yoon ñu xàll fu production yi mën a jaar waaye fu nit ñi mën a jaar boo demee ba daa mbi dina yore fu la li ko wër ak faneen ak faneen Fuuta powu Gàmbi bi mm, booy natt da ngay natt politique yi xam ne dafay niteel nit boole bennoole leen ci nit boo bokk ñu bokk ci réew mi yëg seen bopp ñi bokkuñu Gàmbi wala bokkuñu Guinée mais Sénégal la ñu bokk ci nation boobu la ñu bokk wax dëgg yàlla bu dee dëgg rek moo tax ngay wax jéego yi macha allah. waaye ma dolli ci. Hmm. matewul matewul te buurewul te ñun umpalewuñu ko lu tax. bi ñu dem élection ma Macky Sall programme ban la génne 2025 2023 accès universel à l'eau maanaam ci la ñu war a rek jéem a yeggali ba matal ñëpp mën a jox ci ndox mu sell matal ñëpp mën a jox ci courant dama ne xalaat boobu rek bunt yooyu rek yoon yooyu rek boo ko ubbee ngir niteel nit yaa ngi def loo xam ne dafa bokk ak ñun gauche suñu xalaat ak suñu gis-gis ci àdduna mooy ñun suñu gis-gis ci àdduna jéggi na rek luy baaxal nii mooy gis-gisu booloo liggéey booloo bokk. d'accord léegi léegi. Euh, kon uh-huh. loolu même boo jëlee école ak leneen loo ci mën a gis lu ne am na yokk goo xamee ne yaa ngi doon wax université yu doyul mais fa ne woon ci jamono Ablaye Wade ak fa mu ne tey. lu ñu ubbi ci chantier pour ay yeneen université bu saaluma ak faneen ak loo ci gis loo gis ci annex université bii xam ne moo nekk Ziguinchor ñu amal ko Kolda ameel ko booru Sédhiou dama wax ne bu dee wax dëgg rek teg baaraam rek ci luy baaxal lu ñu niteel am na lu fi defu loo xam ne wax dëgg yàlla bu dul koo xamee ne danga nga gëlëm wala mbañal rek nekk sa xol ba muur say bët muur ub say nopp di nga nangu ne lii lu baax la lii ay jéego yu ñu mën a teg baaraam yu mën a jàppale gunge ko waaye ma teg ci nag dolli ci doyul d'accord matul waaw anam boo mën a yëkkati tey mën nañ ci waxtaan waaye du fi jeexee mhm. ma dolli la ci ne ñun programme boobu ñu doon teg ci ba ñuy sas Benno Bokk Yaakaar mhm. am na lu ci bokkoon lu am solo mooy njëg yi xam ne mooy dund gi nañ ko wàcce mooy mesure yi jëkk bi ñu jëlee nguur gi wàcce njëg yi bloqué ko yow boo waxalee dëgg muy nekk ku nekk opposition wala moo xam ku bañ lu ñuy def bokkuñu fu ñu féete di nga teg sa baaraam ne njëg yi fa mu newoon macha allah wàcce na wàcc boo xam ne ba léegi gaz bi daan jar cinq mille bonbon boobu mu ngi ci deux mille wala deux mille lu topp trois mille mais loolu teg ci liggéeykat yi boo amee mbokkam retraité boo xam ne dix mille francs la daan fayeeku par trimestre ñetti weer yu ne ñu dem ba euh, Macky Sall dakkal loolu Benno Bokk Yaakaar nguuram dakkal loolu ne loolu dootu fi amati benn ñii retraité IPRES weer wu dee lañuy ñuy benn ñaar kenn dootul fayeeku lu yées trente cinq mille jàpp trente six mille francs muy SMIC bi amoon kuy dem ba liggéeykat yi seen bopp ñoo central syndical yi ñoo ko waxal seen bopp convention professionnelle yi amoon yi leen doon boole lëkkale di sart ak seen woy liggéey ak seen borom kër ñuy liggéeyee fanweeri attax ak juróom-ñett ñu koy xeex wàcc na tey xam nga dafa am loo xam ne mënuñu ko toog di ko lim. d'accord waaye nangu rek ne. Mhm. wax dëgg yàlla am na lu fu defu loo xamee ne. képp koo xam ne police kuy def politique dëgg wala xeltu ci politique da nga ne fa ñu jóge na mu soree ak fa ñu yegsi ci mbaaxal macha allah mais may dolli ci nag matul doyul buurul d'accord jërëjëf jërëjëf euh, El Hadji euh, Momar euh, Samb mbokk yi moom la ñu invité tey seen émission pencum réew mi fan yi yëpp dañuy dégg ñuy wax ne Euh, maanaam ñeen ñi dañuy sàkku ne euh, jot na ñu daal di def ab euh, remaniement xoolaat gouvernement bi ñeen ñi jàpp tamit ne poste premier ministre bi nga xamante ni jëlee nañ ko fi tax na liggéey bi ni nga xam ne moom la waroon a gaawee gaaweewu ni yow lan moo ci sa xalaat ci loolu. ay waxi kese rek. réew mi nag loolu mooy màndargaam nit ñi dañuy wax rek. waaye man sopp naa loo wax lu ne nga teg ci baaram ak firnde buy wane ne. liggéey ba nañ ko namewoon mu gaawee gaawee na ni nañ ko nangoo nammee woon mu rafeti ni rafeti ni te li ko waral mooy ñàkk premier ministre loolu buñ ma ko génnelee rek mu mën ci am tontu bu wér boo xam ne dama ci wax la ma xam wax tamit li xel nangu ndax lu manti doon ci réew mi war nañu sàkku nag di wax dëgg euh, euh, El Hadji Momar Samb boo xoolee tey euh, fii si rajo réew mi FM dañ fi def focus ci lu jëm ci importance poste premier ministre ñun ñëpp ñu gis ne da nga gis ay syndicats yoo xam ne dañu doon am jafe-jafe ak seen ministre de tutelle ba nga xamante ni premier ministre bi moo leen di mujjaawoo ngir waxtaan ak ñoom jël seen i kàddu eggale ko si njiitu réew mi. Euh, maître Aya Boun Malick Diop ñoom nee nañ seen jafe-jafe yu ñu am ak ministre maître Malick Sall. bu amoon poste premier ministre amaana mën na mu saafarawu ñi nga xamante ni ñoo nekk ci euh, santé ñu nekk ci santé wax nañu loolu ñu nekk ci éducation wax nañu loolu ndax ñoom nee nañu seen problème am na fu mu doon toll premier ministre moo ko lijjanti ñenn ñi tamit jàpp nañ ne am na dossier yu bari yoo xamante ni premier ministre moo ko doon moo ko doon coordonné euh, te jamono ji tax na liggéey bi yeex xam nga loolu mën naa mooy li ma la doon waxee kese. ah waxee kese ko jàpp waxee kese lu tax. Mhm. ndax premier premier ministre lu man ah, xam nga yàlla def na man dama bokk ci conseil économique social environnemental di ancien syndicaliste nag ni ngay wax ne homme de gauche maanaam suñu féete suñu bopp suñu xalaatin suñu jikko ak suñu jëfin ci politique mooy féete fii xam ne néew di doole ji way liggéey foofu lu ñu féete kon loolu boo amee ñun jógal nañu suñu wàllu bopp man ma jiite ko ñu fexe ba lëkkale gouvernement bi ak syndicat yi 2015 avant affaire yi tàkk syndicat yëpp nag yu yu tra yu yu éducation SAES ba ci suuf ñëpp ma ma dajale leen conseil économique fexe ba ñu lëkkale leen ñu boolewaat toog ak gouvernement bi pour yubbi ay waxtaan. Mm-hmm. mën naa wax lu wér ni am na foo xam ne fuñ ca tollu. premier ministre. baatu président de la république la loxo président de la république tànki président de la république noppi président de la république. kon la muy andi ca waxtaan ba ne nañu dogal li fekk na mu waxtaan caax kilifa ga. waaw xanaa xel mën na nangu ni kooku bu fi newul ñun ñi directement la ñuy wax ak kilifa gi benn ñaar la mu doon wax peut-être sax ne naa xaar ba yegg ci président bi delloo ko waxtaan bi seet fu mu toll ak la mu ciy dogal kooku directement dañ koy tëb mu war a mën a waxtaan ak président mën a war a am ñaar ki xam ne moo war a coordonner liggéey boobu mais wax dëgg yàlla kuy coordonner donc kooku président mën na wax ne tel coordonner budul ancien premier ministre di keneen loolu waxee kese la man nag du ma dugg ci loo xam ne mën naa wax domaine président de la république la. wax nañu ci lu wér. mais si gis-gis. amul changé rek muy changé. dara maanaam mu am ci Sénégal ak mu ñàkk am dara xam nga lu tax ñoo yam ma ne la amul dara lu muy soppi xam nga lu tax. Mhm. dañu nekk ci régime présidentiel boo xam ne ne. kii dogal. ak kii xalaat politique. ki koy dogal mooy président de la république. koñ fi mën a teg boo amul baatam. boo amul waawam. boo amul kàddoom doo dem. ñit ñi ñit ñi dëgg ah, li may faral di wax rek ñit ñi li ñu gis rek li tegu seen bët la ñuy xam waaye li ngay gis di loolu mooy ndeyu mbill bi man nga gis dara mooy li apparent nga teg si baaraam waaye seet la ne sa biir ak na muy doxee te biral nañu ne président bu sàkkoo dara ci conseil de ministres ci ministres yi mu jaarale ko ci premier ministre am mhm. mu def une semaine mu moom ji wax ay ministre am Mm-hmm. ministre yi war a tontu ci moom la ñuy jaaraat mu am une semaine ñu traité ko mu dellu ci président c'est-à-dire euh, <laughs> maanaam euh, diir bi xam ne moom la dogal bi jóge ci kaw jaar fi mu war a jaar ba dellu si am na diir boo xam ne euh, maanaam perte de temps bu rëy la te ma fàttali rek ne premier ministre président moo koy tagal ne ko liggéeyal ma jox ko doole jox ko baat waaye amul moom doole boppam bu mu sàkkal boppam bu mu amal boppam de manière indépendante et autonome loolu dafa war a leer ci bopp ñun ñi kii président nag bu jëlee ne man li ma gënal ngir baral liggéey bi ngir wéral liggéey bi mooy man ma jàkkaarloo ñun ñi jàkkaarloo acteurs yi kenn ba ñu dox suñu diggante lu ma sol dem directement kook bu ne loolu moo ko gënal yow nga ne déedéet loolu gënul kii dama ne yow <laughs> da nga bëgg nag jël place au président. d'accord te loolu teguwul fenn. jërëjëf. jërëjëf eh, El Hadji Momar Samb eh, yow nga bokk ci benn bokk yaakaar nekk eh, membre ci secrétariat exécutif permanent bu benn bokk yaakaar lan mooy sa xalaat ci ci gestion Covid 19 bi ni ko état bu Sénégal géré ndax am na ñoo xam ne ñoo ngi wax ne bëri na daal loo xamante ni ay incohérence yu si am bëri na nag ak tële goo xam ne ñenn ñi sax jàpp nañ ne état bu Sénégal daf ko see tële ni ak yaafus yow lan moo ci sa xalaat. <laughs> xam nga baat yi sax ak kàddu yi dafa rafetul. yaafus yaafus ak tële ci kilifa gi xam ne moom la réew mi dénk baatam dénk ko yaakaaram ngir mu doxal. kooku sax boo amul ci moom war ma. ak res déglu rek moo de do <laughs> waxuma la yow de. da nga yow waxoo ne yow waxoo sax da nga ne ni ñuy wax. waaw loolu la ñu wax. Mhm. kon tontuwuma la. damay rek leeral ci ne. baat yooyu ak yeneen ndax dégg nañ sax yu gën a <laughs> kii yooyu. Mhm. yu gën a xotti war ma. dama la bëgg wax rek ñay wax loolu fa ñu nekk ak fa ñu féetee ak seen taxawaay ma leeral ko kii xam ne moom mooy kilifa gi ñu dénk suñu bopp. te du yow rek te du man rek mais réewum askan wi ne ko kii la ñu wóolu pour mu doxalal ñu. war nga ci am moom benn respect. fonk ak warma goo xam ne du moom ngay war wormaal ci jëmmam askan wi ngay sàkku sax baatam wala neen moom ngay war wormaal. ginnaaw dogal ngeen lii ma nangu seen ak dogal ah lu ci manti xëy nag ba koy kooku booy wax ci moom am na noo wax a waxee ah sa kàddu nu mu war a rafetee du tere nag ànduloo ci lii ànduloo ci léeg amul benn solo ndax àdduna moo demee noonu ah foo mënti dem même ci ñu diine. waaw mais mais mais tële. ma mooy mooy incompétent loolu baat bi xanaa si wolof la diis mais nasaraan dégg nga ba tey yéen ngeen ne euh, président sangam dafa incompétent loolu pour man euh, garaaw la. Ah. dégg li mu wax man waxuma yow de. xam man xam naa ne waxuma du say wax de. du samay wax damay nettali. damay nettali. Mhm. ma bëgg nag ci li ngay nettali leeral loo xam ne man loolu laa gëm noonu laay gisee àdduna. ok d'accord. te man yaakaaru ma ne neneen lañ ko war a gisee sama gis-gis. d'accord. waaye loolu dina ci dellu si yaa ngi wax sax ba ah boo dee boo bu dee boo ko waxee ci ci tubaab xëy na mu mën a jàll mhm. mooy wane ne ba léegi ñooñu ay tubaab lañu wala yow tubaab nga mhm. maanaam xalaatu tubaab mhm. moo ne ci yow jikko tubaab moo ne ci yow te loolu même ba ci suñu démocratie ak gisin yi ak waxin yi ñun loolu la ñu moo tax ñuy waxee noonu ñàkk worma bi am ci tubaab yi moom la ñu andi fii loolu sa beneen waxtaan la gis nga doomu tubaab yi ni ñu defar seen wéyjur mooy ñëw fii ci réew mi ñun citoyen ni ni citoyen français yi di defar seen seen seen i kilifa. Uh-huh. ñun loolu la nàmpatal. ba léegi dootuñu nekk ay africain wala ay sénégalais. ay tubaab lañu ay ba léegi ci gisin ak waxin ak jikko ak xalaatin. léegi gestion léegi gestion bi ñu dellu si. Uh-huh. xam nga lu nit lu nit mën te wax mën a wax tamit. Uh-huh. nañ seet lu ñu mën a teg baaraam. maanaam feebar ba mu songee réew mi. kilifa yi am na lu ñu taxawee. oo ñëpp waxtaan ak ñoom ne am na lu xew ñëpp nangu. dañ fagu fagu bu gën a rëy lu tax mooy lu bees la luy ñëw tiital ñëpp ba tiital adduna bi rek yëpp ba ñëpp doole ci àdduna bi sax mu mu mu tiital leen yëngal leen faagaagal lu bari ba ñëpp jaxle song boobu song noon boobu bu mu yëgsee lii waroon def nañ ko fag yëpp tëj école yi état d'urgence xam-xam bañ ci amoon néewoon na lool waaye la ca topp mooy lan di faj feebar ba mu jur beneen feebar mooy faagaagal koom faagaagal ut alal wala ut koom wala ut dépense luuma li xam ne fala réewu kaw ya ci ci ci ci euh, euh, dëkku kaw yi fa la ñuy weccante fa la ñuy amee koom fa la ñuy jëlee koom ngir lu ñu soxla muy dund muy paj muy leneen fa la ñu koy jëlee ñu tëj dem bex dikk bi ñu dakkal ñi nga xam ne ci loolu la ñuy dundale seen njaboot di ci dund di ci faju wala di ci def leen mu taaw kilifa gi ñaar la mën a def mu ne lu mën a xew tamit nañu jiital xeex feebar bi tëj dangal loraange bu mën a ëpp tamit ku nekk na débrouillé rek ku nekk na débrouillé loolu mënta am Sénégal moo tax sax nañu tëje wuute na waa tugal ak ñeneen nañu tëje lu différence bi différence bi boo ko seetloo mooy ñun état d'urgence bi dafa ànd ak couvre-feu boo xam ne am na waxtu wu muy door ak waxtu muy muy taxaw waxtu yu ko ubbee nag fu nekk mën nga dem mais ñoom dañu tëj loo xam ne amul sax waxtu. confinement confinement total. ndax mën nañ ko am nañ ko seeni dundin mën na ko nangu na ko waaye ñun suñu dundin moo tax la ma lay wax toujours ne am na ñoo xam ne nañuy xalaate ak nañuy gisee gisuñu tubaab la. Mhm. gisuñu ñu féete ca kaw Occident la. du gisunoo adduna bi ni muy doxee suñu réew nit ñi nañuy dundee nit ñi nañu nekki seen nekkin ak seen jëflante ak seen ut sakku koom ak seen sakku lu ñu dundale seen seen wax dëgg yàlla bu dee ñun ñii fonctionnaire wala ñeneen. yoo xam ne banque bi weeru de ñu bàyyil sa salaire wàcc. kooku boo nekkoon confinement amul benn problème. waaye li ci ëpp ci njaboot gi nag leneen la rax ci dolli la ñëw mooy koor ñëw. mbiru diina taxaw. ba am ñoo xam ne jaral na leen ñu jaamaarloo ak police. ak autorité. ngir ne dañuy juma wala dañuy dem euh, naafila wala dañuy ubbi seen jàpp. loolu yëpp am na fi am na fi sax ñoo xam ne ci ay ndaw ak wala ñeneen. ñu ne couvre-feu bi sonal na leen dañuy génn jaamaarloo. mais taxawaay bi si état bi taxaw. waaw ma wax la rek xam nga boo laajee rek <laughs> xam nga li ma sopp ci waxtaan émission mooy boo ma laajee rek fekkee da nga bëgg luy leeral yow sax doo du sa du sa bopp tax nga may laaj. waaye ñi ñuy déglu am lu leer ci seen bopp ñu jëlee ci njariñ man bu ñu demee ba waxtu woowu dama wax ñaar rek mu mën a am. comme bi taxaw. emploi yi marée day taal lépp luy dama dikk. ñaxtu bi. muy syndicat transporteur yi chauffeurs yi ñëpp mer jaaykat yi marché yi mais loolu kilifa yow yaa ñeboote ñëpp yow sa nekk lu tax ñu jox la réew mi du nga defar ñi bàyyi ñi du nga def tamit lu sa xel may rek da ngay def loo xam ne moom la njaboot gi nangu donte sax lañu nangu xëy na sax du nga ne li gën waaye ñoom ñoo la jox seen baat dina dina am loo bëgg a def sax waaye ñu ne loolu mënta ne wax mënuñu ko nag wala antunuñu ko nga ànd ak ñoom ca loola lu tax ndax ñoom nga fi nekkal moo tax ñiy wax di wax rek nañ def lii nañ def lii dañu yorul wala xamuñu buñ leen denkee loolu moomuñu ko lu seen xel rafet rafet nag lu mu baax baax baax lu mu am yéene am yéene bu rafet ñooñu matuñu kilifa ndax kilifa bu ñu la jiitalee dañ la yilif te ñii la yilif mooy askan wi kon bu ñu demee ba foofu ñaar moo am mooy nga ne sama yoon nekkul ci nekkul ñu ñun ñi sama yoon nekkul seen koom donte maa ngi leen di dimbali ci lii wala ci lële mhm. naa naa tëj rek sama yoon nekkul ci may faj feebar jàkkaarloo nit ñi di dóor ay lacrymogène wala di dóor ay bal ndax couvre fa bu ñu nanguwul wala tëj bu ñu nanguwul. kon yaa ngi bëgg faj feebar. bëgg a loraange waaye yaa ngi jural beneen loraange bu ëpp doole boo xam ne fa mu jëm sax doo ko xam. dama ne loolu kilifa bu am xel. di ne ah kon naa seetaan mbir mi nag. du ma wekk lépp ci sanitaire naa am xalaat ci économie bi. naa am xalaat ci social bi. ma xool ban point d'équilibre laa mën a taxawal boo xam ne donte du ñu bàyyi xeex feebar bi. waaye du tere ñu sakku koom sakku jëflante ci diggante nit ñi feexal leen ci seen ngëm. jërëjëf euh, El Hadji Momar Samb léegi euh, nan lan nga may expliquer ak nan nga koy expliquer ndax sànq euh, wax nga feebar bi muy ñëw xam nga coronavirus bi muy ñëw Sénégal am na si information yoo xamante ni kenn du ko xam mais ak ni muy demee ba Sénégal jëloon na ay mesures comme ni nga ko waxee tëj ay frontières tëj ay marché tëj école mais dañu gis ne période bi ñu koy ubbiwaat gis nañ ne si la jàngoro ji gën a aju si la gën a doy waar mm. dese yi si la gën a bëri. Mm. ban explication moom ngay jox sénégalais ci loolu. xam nga dama la doon wax sànq ne gis nga xam-xam di tax jën yi jàng yow ngay jàng nekk journaliste di ko jàng wuute nax ki jàngul di gis rek di wax rek. di tës ah bës. kiy faj docteur boo ñëwee ci moom. du xool rek sa kanam wala la ngay yëg dina seet la ngay yëg la ca suuf sa deret fa mu toll sa xol na mu yëngoo sa tension na mu toll ak yeneen ak yeneen. yoo xam ne moo koy wan ci gëstu boobu ak xam-xam mu feeñal ne feebar bii moo la dal. moo tax boo gisee mbir mu ni mu demee da naa man ànduma. man bi ma toogee mag yi jëkk a wax ne dañuy desserrer. dañuy yolomal. ma dama tiit dama tiit. toog naa presque une heure de temps yoo xam ne may xalaat mais kii fu ma ko teg. li mu li mu li mu def nii. waaye gis nga nit nit booy jé booy ut dëgg. dangay ngay a xam jëm a gëstu. jéem a xool boo newoon place am. bañ a yem sa bopp rek ak sa gis ak sa nekkin. ndax walaa na sànq ne man fonctionnaire bi sama nekkin ak sama gis-gis nañu tëj fukki at xëy na du am problème parce que toujours sama le salaire mi ngi wàcc waaye lii man du addu du réew mi yëpp askan wi li ëpp ci lépp kon paradoxe boobu moom nga génn maanaam xam na lu xaw a teexal lu euh, xaw a loomaatoo ci diggante feebar bi nu muy yokkoo ah dee ni muy bare ah wala ñu ñu war a dangal ñuy yolomal li koy waral mooy li ma la wax nii léegi boo jëloon médecin yi wax leen laaj leen duñ lay wax dangalal mais wóor na ma ne médecin bu am xel te professeur Seydi mës na ko wax nee na ñun ay technicien lañu ay borom xam-xam lañu ay fajkat lañu am na lool buñ koy wax ci loolu lañ koy wékk teg ko muy lu wér waaye kilifa giy dogal du yem ci loolu rek ndax nee naa la urgence sanitaire bi ak mbirum paj ak feebar bi dafa am beneen feebar boo xam ne mën na juddu gën ko ëpp doole mooy économie bu fayee liggéey amatul ñu ni amatuñu fu ñu jëlee euh, euh, euh, dama tudd koom ba mën na yegg ba fay électricité bi ba fay ndox mi sécurité mën na taxaw ci jamono joo xam ne réew mi li ko wër insécurité la parce que terrorisme bi ba léegi mu ngi fi nga kilifa buy xalaat yoram réew yooyu yëpp day yegg si ci moom mu am nag ay borom xam-xam ci wàll wu ne yu koy wax ah ñun lii lañ xam ci wàllu koom bi lii lañ xam ci wàllu social bi nekk nu ñun ñi jëflantee nit ñi li lañ xam ci wàllu diine ak xalaatuñu nit ñi seen ngëm. li lañ xam ci wàllu sécurité fu mu toll médecins yi ne ko ñun li lañ xam ci feebar bi. dama ne bu boobaa yow sa bopp sax dangay ngay tiit ban dogal laa war a jël. ndax dogal boo jël xëy na am na conséquence. waaye yow yaay natt ak say borom yi xam-xam ak sa kilifteef ak sa gis-gis nga ne ah nañu def lii xam ne mooy di fàggu waaye nag. di dox uti koom dundal koom bañ a fay koom bañ a rey koom dundal nekku ni ñun ñi dundal seen ngëm bàyyi leen ak seen coobare. kon danga nga jàpp ne. moo wax la euh, leneen kon da nga jàpp ne mënoon jur mënoon naa nekk feebar bu jur jàngoro. Eh, mais loolu lu wér jur na jàngoro. xam nga est-ce que xam nga ne ñu ngi ci jàngoro comme bu wér. d'accord crise économique. waaw léegi nan la ñuy def ba euh, pour laaj boobu noonu euh, président Macky Sall wax na ko lan moo ci sa xalaat. ak ban taxawaay la ñuy teg ngir relancer waat li nga xamante ni mooy économie bi ndax ci kàddu yu njiitu réew mi wax na ne Sénégal euh, économie bi dañu am ay euh, ay jafe-jafe nan la ñuy def ba mbir mi euh, rétablir waaw xam nga sax am na lu ma tontuwul ci sa laaj bu njëkk waaye bi na yaa ngi ci koom. moo mën nga ci tontu ci laaj mën naa ci tontu ci laaj bële. mooy wax naa la mbirum sanitaire. te wax dëgg yàlla. Mhm. boo seetloo li xam ne mooy sanitaire bi. paj mi. wax dëgg yàlla na yoon. gunge gi xam ne gouvernement bi mu ngi koy gunge ñiy faj ak seen taxawaayam taxawu ba. ah la muy laaj jox na leen ko ba mu man mu wax ba mu mat sëkk ndax lu lépp du buure fenn ci àdduna nag. Mhm. waaye professeur Seydi bi wax ne. wax dëgg yàlla volonté politique président de la République feeñ na ci jëf ji. Mhm. boo seetloo bu fekkee ne dañuy xayma rek. juróomi fan ci weeru juillet bu ñu nekk ñu ci fukki fan. ci àdduna bi. li xam ne mooy xayma bu ñu wax ñii ñu faj ñu wér génn ci cinquante six pour cent la. ci xayma taux bi. boo demee France quarante six pour cent la. nga dem Afrique. wërgël képp quarante sept virgule huit pour cent. Côte d'Ivoire quarante sept pour cent mais boo ñëwee Sénégal taux bi ñu wér. soixante cinq virgule huit pour cent. loolu mooy ci wàllu le plan sanitaire ah médical ah ñooñu taxawaay boo xam ne bu rafet la. boo jàllee ci wàllu social taxawaay bi Macky Sall gouvernement autorité jot am ci ni ñu jàppale ñun ñi courant mu fay bimes ñi gën a néew doole ndox mu fay bi ñi gën a néew doole andi aide alimentaire boo xam ne kenn mënu ko réere mbir secteur bu ne ba ci artisanat ba ci chauffeur ak ñeneen ak ñeneen mu andil leen ak njàppale goo xamee ne wax dëgg yàlla xëy na doyul xëy na matewul waaye am na ñoo xam ne ku nekk gis nga ci bopp te yamul rek ci réew mi dafa génn ci diaspora bi dama ne gis nga nga réew bu dee nit nga amam xel te doo teg baaraam ci li am lii baax li rafet nga ndangu ko ne nañ koy yokkee wala lan moo ca euh, doye di nañ koy jubbanti doo nit d'accord ma dolli ci ne ah. yamul ci lool rek wàllu koom bi waxuma social laa wax wàllu koom bi mu taxawu entreprise xoolal rek xalaat bi mu am ba jël ordinance boo xam ne ngir ñu faag ñu fegu ñi xam ne ñooy liggéeykat yi ordonnance boo xam ne def ne ñii xam ne ñooy yor borom këru liggéey ku ci wa def timit chômage technique salaire u yi au moins soixante dix pour cent nañ leen ko jagleel xalaat boobu rek xalaat la buy fekk si ñun suñu gis-gis ci àdduna ñun waa gauche ñun ñiy far ci liggéeykat yi ci peggu liggéeykat yi te bu ñu tontoo ci loolu nga ñëw nag ci koom bi nuñ koy relancer. waaw bala ñoo ñëw ci relance bi tamit euh, euh, yow euh, El Hadj Momar Samb xam nga tamit sànq danga ko wax moo tax moom man tamit foo ma dellu si si. taxawaay bi nga xamante ni tey sunu médecins yi am nañ ko loolu kenn du ko weddi mais ñu bari tamit wax nañ ne médecins yi Sénégal si feebar bi. Sénégal war na see jàngate dolliwaat ay matériels yu bare bare bari amaat beneen taxawaay ci lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram wax nga tamit ci ed alimentaire ci mille milliards yi koppar yi nga xamante ni teq nañ ko si soixante-neuf milliards def ko ed alimentaire même aide alimentaire boobu ñu bari tamit gis nañ ne ak sooxe am na maanaam ak yeexaange ak ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw te mbir mi eggul si ñoom lu wér loolu comité de suivi bi bi François général François jiitee am na lu mu ci feeñal waaye li mu wax tamit danga koy nangu boo nangoo mu ne am na lu sooxe mais daf ne boo jëlee lépp li ëpp maanaa ëpp solo rafet na yemb na yàgg na loolu da koy nangu xam nga loolu laay wax toujours boo nangoo ne am na luy sooxe te ma wax sama njël benn xam nga nit bu dee nit la tey xalaat nit yem ci nit doo yonent doo yàlla dara matewul dara yembul dara buurul ma wax ko nag sama baat ci kaw di suñu réew rek àdduna bi amul nit ku mat sax dafa amul nit ku buur même yonente bi sax nit na nite goo xam ne léeg-léeg sax yàlla am fu mu ko noddante. mais est-ce que jàpp nga si aide alimentaire déglu rek. 69 milliards yi séddale ceeb beeg yooyu <laughs> ñenn ñi dañoo jàpp ne mënoon nañ ko envoyé. nit ñi xam nga xam nga. xam nga El Hadj Momar yow sa waxtaan euh, boo bëggee wax sa xam sa xam-xam bi yëpp. bi léegi tey jeex moo déedéet xam nga lan la. xam nga man li ma sopp ci waxtaan. mooy bëgguma wax wax waxantu. d'accord. kasaw kasaw loolu moo. mais li wax leer na moo tax. déedéet déglu rek xam nga boo ma laajee aussi dinaa am man naka laa yéene ah tamit euh, ah bu ma amal nit ñi pour tontu. d'accord loolu moo may yóbbu ci ma bëgg a yeggali lépp. d'accord bismillah kon boo waxee ne feeñal na sax médecins yi am na ñuy wax sax matadi sax am na ma ne la gongo man d'accord naa ci amul àdduna bi benn réew boo xamee ne benn réew boo xamee ne euh, feebar bi feeñalul. say doyat yi ci wàll yëpp waaye alhamdulilah ba ñi xam ne ñooy docteurs yi ku mel ni Bousso ak Seydi li ñu wax rafetal nañu taxawaayu nguur gi te man mënuma comprendre lenn yow xam nga médecine ak ah médecin yi nguur moo leen yor ñuy defar lu baax nga ne waaw ñoom ñu ngay def lu baax waaye nguur gi defar lu baax <laughs> loolu loolu xel mënu ko nangu parce que de médecine bi ñuy doxal nguur gi moo koy tëgg yoon wi ñuy xàll nguur gi moo koy tëgg jumtuwaay yu ñuy jariñoo nguur gi moo leen koy jox alal ja cay dem nguur gi moo leen koy jox kon mën mënoo leen teqale ñu bari ndëkk ngir nëxal xelu ñin ñi mari lay taal yi dañ naa waaw médecins yi war nañ leen gërëm dëgg dëgg waaye gouvernement dañ ko war a xalab professeurs yi médecins yi waxuñu lool de te ma limal la ñi xam ne ñoo gën a fës ci seen taxawaay ak jëfin ci wàllu la wàllu woowu. d'accord d'accord léegi euh, mbokk yéen a ngi déglu réew Rewmi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot euh, bu 15h jotee jàpp 16h tey ñu dal El Hadji Momar euh, Samb. maa ngi jégalu nag si dagg bi ma lay dagg léegi nan la def ba relancer waat économie bi. waaw loolu nag li ma ci jëkk wax mooy mbir mu doy waar ngi nii. bu kenn foogul woon kenn xamul ba léegi. boroom xam-xam yi gën a am xam-xam ci wàll wi xamuñu feebar bi. mbetteel xam nga Chine dañu woon pare na. am na lu fu judduwaat. Allemagne noonu. France dégg nga kon mbir mi doy na waar doy waar boo xam ne foog nit ñi am ak dal ak teey ak maandute surtout waaye ñun Sénégal yi dañu maandewul ci lu bari ils sont très prétentieux. fëgg dënn moom jaay xam-xam jaay manore dafa mel ni fii la fekk baax. waaye li ñu wax mooy plan boo xam ne day gën a dëgëral gën a dooleel gën a wéral gën a yëkkati justement li nga doon wax mooy le domaine de la santé nu ñu yëkkatoo plateau bi noo xam ne jox ko jomtuwaay yi war ba dara du ñu bett ci wala dara du ñu mën bu ñu bettee tamit ba tax waaye bi gën a wér gën a rafet donte am na nu mu rafetee noo xam ne boo xoolee chiffres yi dans le monde entier wax dëgg yàlla mën nañ ci wax ne alhamdulilah koom bi gis nga ni ñu jëlee agriculture bi ñu ubbi bunt yi ñu ñi mën a dellu ci àll bi ñu jagleel lay ay milliards. ngir ñu mën am jiw mën am engrais mën a am lu ñu béyee. noonu la ñu def ci artisan yi gis nga fan yi yëpp ministre bi xam ne moo yor lu ñuy wax économie sociale solidaire ni muy gunge askan wi ci suuf région bu ne mu dem fa am lu ñu leen jox. agriculture wax naa ko waaye industrie bi aussi gis nga. borom këlul alal yi patronat bi nu ñu lëkkale ak ministre des finance ak économie toog di waxtaan ngir seet yan pexe ngir gën a dooleel ubbiwaat gën a rafetal ñun am nañu compagnie amuñu ko woon ni mu amee ci jamono Macky Sall Air Sénégal. la mu doon xaar ci alal daan dugg ci alal buñ ko ubbaatee à partir du quinze xëy na mën na am lu mu indi. waaye dafa am leneen lu ci aju. mooy li ñuy wax bor bi. fan yi dégg nga waxtaan nga ci sax. wax nga ci. ñu am initiative pour ñu annuler dette bi dette boobu bor boobu dañ ko gàll ci ndox dox euh, askanu Afrique yëpp nag. ak ñu jéggi sax Afrique. wala ñoom ñoo ñoo ko leb. ko leb. waaye euh, leb bor fay bor. Mhm. dëgg la loolu nangu naa ko. te Sénégal basul noppi di fay. ci at mu jot. waaye la mu la mu diise ci ñoom. Mhm. ci jamono euh, mbas. ñoom ñi xam ne ñoo ñoo ñoo joxe bor bi ñoom ñu ngay faas seen bor wala ñu ngay jéem lu ko faas wala ñu ngay pexe yoo xamee ne ñun amuñu ko d'accord mais mais mais initiative bii nii euh, muy IADA bi euh, il faut ñu wax si tuuti mooy pour ñu baal ñu bor bi yan réew si si Afrique ñoo si bokk pour ñu pour ñu avancer pour ñu buñ ñu baalee bor bi lan mooy nekk njëriñ li bu ñu baalul bor bi lan mooy nekk conséquences yi yan réewu Afrique ñoo si bokk wala bu amagul yu si bokk. Ah, kañ am na de euh, d'État yu bari yu sous région bi yoo xam ne nangul nañ ko am na yu jéggi sax sous région bi. ñun ci initiative bu ñuy jël. mën nañu fu ñu toll woon ci le vingt cinq bi ñuy lancé appel bi. am nañu quatorze pays d'Afrique mais des na. rawatina am na sax ay réew yoo xam ne du réewu Afrique ñu ngi jàpp ci mbir mi. ñu nekk Canada ñu nekk Belgique ñu nekk France ñu nekk Suisse dégg nga ne. François voilà dégg nga ne Macron nee na ànd na ci. Mm. dégg nga ne Pape François ànd na ci. Mm. am na ci biir ñi xam ne les institutions financière internationales ñoo xam ne ànd nañ ci. Mm. waaye ñun doomi Afrique. Mm-hmm. bu ñu jógul. Mm-hmm. takku nekk benn ngir loolu mën a am. duñ ñu ko yombalal. lan moo nekk seen stratégie. suñu stratégie mooy yëkkati. Mm-hmm. ndawi Afrique yëkkati doomi Afrique. ñu mën a taxaw ci mbir mi mën a am pression wax ma rek africaine mais internationale boo xam ne fépp lay jóge bi wax ne ber bi nañ ko teggi bor bi nañ ko teggi xam nga lu tax lii et loolu moo gën a am solo lu ndaw yi war a xam nga bor bi ñu am ren fi mu toll nii mën naa wax am na lu loo xam ne bor bu Abdou Diouf amoon la bor bu Abdoulaye Wade amoon la fekk si bor bi xam ne mooy euh, ayu Macky Sall ñu bari xamuñu loolu loolu mooy boru état surtout bor bu mel noonu du yem ci kii xam ne moo yor euh, réew mi day dem ba ci doom yi ndax état la état lu ñu wax continuité la te bor bi dañ ñu lonk li ñuy wax ñëw dafa dafa gàll suñu nodd lu nekk diis ndax kon dafa am ay conditions yu mu àndal yoo xam ne day néewal doole Afrique est-ce que xam nga am na lu ñu daan wax plan d'ajustement structurel bor bi dañ la daan wax bu ñu la koy lebal wala bu ñu lay lebal lii na nga ubbi sa sa sa douane ñun marchandise bu ñu am moon fa dugg te du fay la mu war a fay. Mm. na nga privatiser sa économie maanaam boo amee courant yor ko mu public national da nga koy privatiser ñu jox ko borom alal ndox mi ñu jox ko borom alal raay bi ñu jox ko borom alal Sonacos ñu jox ko borom alal. saa lii xam ne mooy koom bii gën a moomal sa bopp tax nga nekk am sa souveraineté lu bari dañ koy faas. lu tax dafa war a génn ndax rentabilité ñoom lañ ciy wut ñu mën ko jënd continuer di la dompat te service bi ngay fay at mu jot dafa mel ni day yokk at mu jot dafa yokk mel ni bor boo xam ne ilaa yow mi diine du jeex. te loolu donc consensus yooyu maanaam lii lalu ci bor boobu loolu la ñu war a dindi maanaam dañu war a soppi doxalinu àdduna bi ni ñu tëggee bor bi ni ñu tëggee koomu àdduna bi. loolu la xel loolu la aujourd'hui Macky Sall li mu doon wax depuis décembre avant mbas mi di ñëw nañu changer ordre bi xoolal rek ñun dañuy lebal waaye dañuy wax bu ñu la lebal fi ngay dugal xaalis bi voilà mënoo lànk yow yaa soxla soxla nga soxla boo xam ne boo bëggee yëkki sam réew yow boo bëggee tabaxal say doom kër wala utal leen fu ñu nekk loo xam ne mooy baaxal seen ëllëg tey nga koy def te sa alal ja ngay am sa biir kër yow dong du ko doyee waaye boo leen bàyyee sa doom bu ñu yegsee la ñu luy fekk foofu dina ëpp la ñu waroon fay. xalaatu xalaatu yor réew. du du du lu lu yomb. waaw mais El Hadj Momar Samb dafa mel ni euh, annulation bor bi moom yéen da ko bëgg a jàppee euh, par force su déggee <laughs> ñenn si ñoo xamante ni yëkkati nañ si ay kàddu. dafa mel ni force la wala du force. xam nga mënuñu wax par force xam lu tax. waaye euh, li ñuy wax lu légitime la. am lu jaadu la. lu yenu maanaa la lu xel mën a nangu la lu tax. ñaari misaal rek laa lay jox. dafa mel ni ci guerre mondiale la ñu ne. nga guerre mondiale bi passé bi ñu jógee réew yu bëri daf leen màbb nga France dañ ko lebal xaalis boo xam ne du ko fay mais communité internationale ñëpp la fi roor nekkal. Allemagne Angleterre dañ leen lebal loo xam ne fayuñu ko waaye ñu ne lu tax ñun ñu nekk ci guerre mondiale ak pandémie bi te ñun duñu fas fase suñu bor te ñun ñëpp di ay doomu aadama te ñun. Afrique li mu def ci koomu àdduna bi pour tabax àdduna bi am koom yu mu am beneen réew beneen askan defu ko ñun rek la ñu def ñetti xarnu trois siècles d'esclavage ñun ñoo tabax Amérique alalu Amérique suñu deret suñu deretu maam suñu njaxu maam ca lañ ko tabaxee deux siècles de colonisation ñun rek aakim suñu réew di rocc alal ji ne di rocc mën-mën ji seen la fa baax ñu rocc ko yóbbu seenam réew tabax seen économie ndax ëpp ñu doole guerre mondiale ñëw ñu jël suñuy doom yóbbu leen ñuy xare ñu bari dee fa kon bokk nañ ñi tabax ci àdduna bi jàmm ak li am kon ñun doomu àdduna bi lañu kon àdduna bi am na fu ñu war a féete bu fekkee ne dañu tollu diggante te loolu kenn fayuñu ko. d'accord mais IADA. boo tegee ci taabal ji li suñu lu askanu Afrique noir yi lu ñu lu ñu ñu jagleel àdduna bi lu ñu defal àdduna bi du sax doo ko sax mën a lam mais seen kuréel bii di IADA est-ce que am ngeen ay argument yoo xam ne tey da ngeen ko teg ci table bi. non seulement pour convaincre doomu Afrique yëpp. Mhm. pour ñëw adhérer aussi pour ñëw bokk ak yéen xeex bi. Mhm. mais tamit est-ce que am ngeen ay argument yoo xamante ni au international danañu leen euh, jàppale ba ñu ba ñu baal. africain yi moom la ni dama la wax ne sànq ne mbir mi bu dul forcer tamit dañu am légitimité. dañu am sañ-sañ. taxawul laaj li xam ne ñoo ko moom. adduna bi fañ ko féete woon ñoom dañu war a féete fenn fi ci jamono yi mënuñu laaj ñu aar suñuy doom ngir ñu bañ a dee ba ñu duñu laaj ñu fay bor ñaare li ñuy tabax nii mooy argument yi ma la wax nii am na ay argument économique am na ay argument juridique am na ay argument moraux historique mooy yi ma la doon wax sànq trois siècles d'esclavage deux siècles de colonisation les tirailleurs ñu tabax àdduna bi jox ko alal ji mu am Amérique jox ko maxaama bi mu am tey ñoom ñu ñuy not di teg su ñun bor yoo xam ne xam nañ ne xel ne duñ ci génn même bu ñu bëggee sax am ay médecins yu bari su ñu masse salariale ñoom ñoo koy surveiller trente cinq pour cent du fay suñu suñu recette budgétaire doo ko weesu sinon duñ lay bal fan la seen liggéey ñu ne bu ñuy plafonné booy bu ñu lay jox bor tamit waroo weesu soixante dix pour cent ñoom ñu dem cent pour cent Japon deux cent pour cent France cent cent dix pour cent wala cent pour cent loolu mooy le système mondial bi am dafa injuste. te ñoom nañ ko tëggee dañ ko tëggee ngir seen njariñu bopp loolu nag la ñu war a déjjati. te loolu boo ko bëggee nag fa nga am ci xam-xam bu wér. te ñun suñu biir am nay borom xam-xam ay professeur d'université économie lañuy ñuy jàng si la ñuy. voilà ñoo xam ne dañu am argument technique économique. juridique historique am nañu ay professeur d'histoire loolu yëpp argumentaire la bu ñuy tabax. te li ma la wax ni appel bi boo ko liiree. am na loo doon wax sànq ma tontu ci ñu bañ ko fàtte. muy alal jooju bu ruusee. nuñ koy def dañ koy fooye déedéet dañ ne. alal jooju dañ ko war a yor yorin woo xam ne yorin mu sell la benn ñuy def ko ci fii xam ne moom la nit ñi soxla di xaar santé dëgëral dooleel yaatal santé bi mu nekk accès bu universel éducation na noonu waaye eau ndox électricité ba internet fexe dugal investissement yoo xam ne dina jur liggéey ngir ndaw yi noonu lañu ñu tëggee suñu appel boobu waa léegi euh, El Hadji Momar Samb yéen IADA Euh, taxawaay bi ngeen di def nii euh, am na solo askan wi tamit jàpp naa ne dana ñëw jàpp ñëpp ci xeex bi mais yéen tamit est-ce que tamit di ngeen jox askanu Sénégal wala askanu Afrique ay garanti que bu lii weesoo bu ëllëgee lépp naam mënul ñàkk mais fañ koy dugal tamit est-ce que di ngeen ci def ab saytu. mooy li ma la wax léegi nii dama la wax ne ñun suñu appel bi ñu lancé déjà. jox nañu ay tegtal nguuru Afrique yëpp ne leen nag lii ruus ci loola. Hmm. bu ñu teggee bor ba la cay ruus bu ay centaine de milliards de dollars ñu ngi xayma boru Afrique trois cent soixante cinq milliards de dollars ma macha allah nañ ko def fi ñu ko war a def. ñu ne yorin wa sax dañ ko war yorin woo yor woo xam ne weneen yorin la warul yor wee xam nga jamono dox na dox xam ne bañ toll nañ foo xamee ne nga askan wi seen bopp ñooy sàkkul yenn ci nguur mu mën doon. ci Afrique am na loo xam ne dootul mën ne. waaye na loo xam ne foog waa Afrique ñu boole ko nag nekk benn am benn baat di ko sàkku di ko xeex. xoolal rek est-ce que xam nañ dañu natt ne évasion fiscale li ñuy wax évasion fiscale at mu jot cent milliards de dollars dina génn Afrique. te ñii xam ne ca ñoom lay dem di borom alalu bitim réew. duñ ko feeñal fenn. loolu war nañ ko xeex ba ñoom ñu bokk ci lii xam ne mooy kuréel gi permettre bu ñu bëggee rawale alal jógal Afrique dem France wala Angleterre wala États-Unis wala feneen ñii xam ne xam nañ fu xaalis bi jaar ak fu mu jógee ñu ma ne ah. Sénégal attention am na lu jóge seen seen seen seen dëkk. nga loolu bu amul mu mel ni rek banque suisse yi xam nga day sàcc alal Afrique sàcc la wax de waxuma sa évasion fiscale bi xam ne dafay jaar ci mais sàcc nekk ci nguur ga sàcc koy rawale ko France te bu ko rawalee France banque France xam nañ ko. xam nañ ne jaarul parce que léegi la ñu jàpp nit sax di ko tumaal waaye bu fekkee ne nguuru kooku neexu leen wala kooku àndul ak ñoom. Mm-hmm. waaye lépp loo xam ne seen njëriñ la dañ koy aar noo xamee ne. ñu faagaagal suñu koom-koom. xeex la nee naa la système d'endettement bi xeex la. dañ ko war a soppar ñi dañ ko war a déjjati. évasion fiscale bi naka noonu. waaye xoolal sécurité adduna bi. nan nga mën a nangoo Afrique ñu dal ci kaw Libye rey Kadhafi te ña koy décider Nations Unies wala feneen ñun mënuñu am baat ci Nations uni ci conseil de sécurité ba am veto te ñuy un million un milliard trois cent millions d'habitants di xaaj bu am solo ci àdduna bi seen yëpp lim Chine am ko fa beneen réew am Russie am ko fa États-Unis am ko fa France am ko fa Afrique ci boppam mënu ko loolu lu muy indi ak lu muy woote mooy booleeg réewu Afrique ñu nekk benn def benn say benn dànk am benn baat di mën a comme niñ ko defee ci deet bi xeex ba puus nit ñi ñu soppar ñi mbir ñi ba ñu mën a teew fa ñu war a teew di wax lay suñu njariñ ca àdduna ba ndax démb ñun ñoo leen ko jiwoon kon ren war nañu ñu ko delloo. jërëjëf euh, El Hadj Momar euh, sàmm macha allah euh, waxtu wi jeex na mais boo ma nee une rek mooy yéen seen kuréel bi initiative pour la nelation de la dette africaine. Uh-huh. jamono ji may waxee ak yow ci samedi ji seen liggéey fan la fan la yam instant bi wax naa la sànq ne ñu ngi def signature pétition. fu mu ne jamono sax jàll nañu. junni. waaye dañu war a baral liggéey bi. ñu ngi waaj dem ci lël boo xamee ne. li ñu tëgg ci. suñu plan d'action maanaam ni ñuy jaaree ni ñuy doxalee li nga doon wax sànq ak suñu argumentaire lu ñuy taj ci taabal ji ak ni ñuy doxalee ngir mën a yëkkati mobiliser population africaine surtout ndaw yi population monde bi xam ne sont progressistes maanaam ñun ñu bëgg nit la bëgg dëgg xam dëgg ràññee ko nuñ koy doxalee ci foofu lañ toll wax naa la sànq ne le vingt cinq bi ñuy def appel bi lancé appel bi am na fukki réewu Afrique ak ñeent yoo xam ne kuréel ya fa ne nañu am ñoo xam ne aussi ñu ko ay tubaab lañu Suisse Belgique wala feneen li ci gën a neex mooy ñun ñi bokk kuréel gi ay centrale syndicale ñoo ci ne. am na boo xam ne CIS. te bu Afrique moo du gërëm bi ñuy jiite moo ko jiite ay deux cent million de personnes lañu. de travailleurs yu syndiqués. xoolal loolu rek doole la. nga jël yeneen centrale syndicale yu CSA. yu mel ni UNSAS. lu CNTS FC ñëpp ñu ngi ci te ku ne da nga am kuréeloo ci àdduna bi ci Afrique a ci àdduna bi loolu ñu bëgg a yëkkati. jigéen ñi naka noonu conseil national des jeunesses naka noonu FAFS naka noonu boole ci nag wax dëgg yàlla am na ko ñu jàppale koo xam ne moom mooy yëkkati baatam bu njëkk mooy président la république. bu ñu jàppalee ci loolu. yeneen président Afrique jàppale ñu ci loolu. ñu woyal xeex bi ci anam yu rafet yu teggi ne yoo xam ne xam-xam ak wéral baaxal moo ko lal am na yaakaar ne nañ ciy génn. jërëjëf ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm. jërëjëf maa ngi leen sant di la gërëm di di jégalu nag bu fekkee ne léeg-léeg ma bës la ndax. waaw eh, waxtaan wi moo demee noonu wax dëgg yàlla man ni ma déggee waxtaan daal. Uh-huh. mooy déglunte tontu lu ne nga leeral ko dara du ruus ba ñun ah li daal waa ji daal day wax rek. voilà léegi lu ne nag ñu teg suñu baat. damay faral di wax ne. réew mi li ko yàq mooy dañu am presse bi nga baal ma nag presse u tës la ñu am ak presse su buzz. Ah, jërëjëf waaw loolu nag war nañ ci génn. incha allah ndax buzz ak tës day tasam réew. jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, mbokk ñu leen di sant baax di leen di gërëm seen émission pencum réew mi la woon Abdou Khadir moo nekkoon ci euh, micro bi aadama ci wàllu xarala bi jërë ngeen jëf euh, jàmm ak jàmm